inna rajo rajoxoon di jaale mbokk internet Actubuzz TV yëpp di jaale képp ko xamante ne yaa ngi ñuy suivre ci Actubuzz di ko jaale sénégalais yi mooy Prince Fadiga xale boo xamante ne tey que ñu bari gën a ko ràññee ci site internet bii di Actubuzz TV yàlla dogal tey mu ñàkk bakkanam di ko jaale Elmo ah, parce que bokk ngeen ci ñi nga xamante ne mooy ci côté carrière am ci lu bëree bari ngeen ci doon def ak moom te yàlla suñu borom jëlee ko fi eh, di ko ñaanal yàlla na àjjana doon li nga xamante ne mooy këram yàlla na suuf ci kam Elmo ñu ngi leen nuyu baax di la waaw boobu maa ngi lay maa bu baax di la di la jaajëfal di euh, di la ziar bu baax a baax xëy yaakaar naa ne comme ñu koy comme niñ ko waxee rek et que aajowul woon sax ma nekk di wax mais xëy na yaakaar naa gën a gën a jege gën a yee lañ koy wax. et tey jii nii ku fi bàyyeekoo dafa nekk koo xamante ni suñu ra suñu rakk la nekk nekkoon frère suñu yaakaar naa ne tey jii nii bu ñu yéegee tis mi dafa nekk loo xamante ni lu lu ñu métti trop la duñ du ñu métti sax parce que yàlla moo ko dogal. waaye aussi tamit loo xamante ni lu ñu bett la. parce que yaakaar naa loolu bett mën la fii ñu waxee ni sax dama ñëwoon euh, si këram nii ngir euh, xool euh, comment ça se passe quoi waaye aussi nekk na loo xam ne lu métti nekk lu métti loo xamante ne tey lu métti métti la tey ba tey ñu gis Sénégal wala képp tey foo dugg ci TikTok yi dèjà dèjà xale bi vidéo yi viral na viral boo xamante ne tey ñëpp a ngi seen xool tooy na parce que ndaw gi mu génn àdduna mais beneen bi mu nekk xale bu jullite boo xamante ne tout le temps. wax foo musa dégg ay kàddu ne dafa bëgg yaayam dama bëgg suma yaay dama gëm sama bopp dama bëgg jàppale suma yaay ci situation bi mu nekk ma génnee ko ci lii may xalam dama na bay nekk bu mu nga doog ilmu waaw xam nga euh, mbir dafa am parce que yaakaar naa ne comme ni ma la ko waxee woon sànq rek xale bu jàmbaare la mhm. man tey jii euh, am na mal mal placé naa pour wax si moom mhm. parce que lu mu gàtt gàtt xam naa ko mhm. et am na lu bëree bëri bëri bëri bu ko mosaan a soxla da da doon ñëw si man mm-hmm. et ma ko doon conseillé wala ma ko doon euh, def lii lii di di ko di ko teg si yoon mais euh, comme ni ma mën a wax tey jii nit ku génn àdduna mënoo def si moom wax si moom lu mm-hmm. tey témoignage yu ma def si moom euh, peut être boo ko mosaan a wax day naan man dama bëgg tekki ba teral sama yaay moom boo ko mosaan wax loolu rek la may wax mm-hmm. tey jii nii même bu ma doon présenté yaayam parce que Ah, sekkoon nañ liggéey nga xamante ni ki ngi sama benn xarit bu doon liggéey si man Pape ndeysaan maa ngi koy maa ngi koy nuyu au passage baax baax Pape moom moo ma présenté woon mu fekk boobu ñu doon tourné fii nii seen koñ benn sketch effet yooyu noonu quoi si la ma Pape ah, ak moom boo après expliqué ma carrière am bëggoon mu nekkoon koo xamante dafa amoon euh, euh, yéene si musique mhm. tey jii nga xamante ni amoon na si benn benn benn yéene bi ngir rek mën a tekki mhm. ngir teral ki nga xamante ni moom mooy waajuram mhm. ba ma ko pap présenté aussi man tamit defoon naa sama tuus ba nga xamante ni moom euh, présenté woon na ma aussi ménage itam Ahmed maa ngi koy nuyu au passage aussi ak jël téléphone jox ma jox ma yaayam yaayam dañ doon déggante téléphone ba njooloo sax nga xamante ne jëloon na ma magam magam bu jigéen présenté ñu ko aussi tamit moom bañ na ko moom daf ma doon wax yow yaay sama mag. Ah, yaayam la wax mu na ma yow yaay sama mag yaay sama lépp. xam nga ba ba yaayam sax tey jii su ma su ma doon déggante moom téléphone même chose damay wax jàppale ko yow magam nga euh, euh, euh, kilifaam nga léppam nga ba tey jii amul lenn lu mësoon a dugg mm-hmm. te waxuma si même clip bu mu doon génnee mooy temps yi doon génnee parce que yaakaar naa ñu bëri si loolu moo tax ñu xam ko mooy effet bad buzz bad buzz boobu noonu ñu doon def parce que dafa mos dafa mësoon a bëggoon génnee clip mm-hmm. mu ñëw si man expliqué ma léegi euh, problème bi moo nekkoon naka la ñuy defee parce que moom xale la woon te kenn xamu kenn kenn kenn xamu ko woon kenn kenn ràññewu ko woon léegi comme que ñun xëy na yàlla may may nañu tuuti si côté euh, showbiz ñu xaw si xam tuuti rek bariwul et ñu doon jéem fexee def créer naka la ñuy créer benn bad buzz après si la ma ko expliqué ne ma benn clip boo xamante ne mariage et tout ça léegi si laa ko ne léegi da ñëw ñu def benn émission boo xamante ni euh, il faut ñu woo gel bi nga xamante ni moom moo fi defoon ñu mel ni comme si que yow da nga marié dëggantaan réellement yaa ngi dégg bu ko defee avant clip bi génn émission bi mën a daw nga xamante ni après dina mën a def benn bad buzz far yàlla def nag gel gel bi nga xamante ni moom moo tourné woon clip bi euh, mu voyage demoon Casamance xaw ma Guinée hmm. léegi problème am foofu noonu ñu ne kon fa la ñuy jëlee gel bi hmm. parce que laa ko benn xale bu jigéen boo xool interview bi léegi euh, dañuy xale bu jigéen boo xamante ni dina mën a Euh, du génn parce que bu génnee dañu xam ne gel bi nekkul gel bi mais na loxo yi génn rek bu ko defee nit ñi dañ mën a xam ne carrément que tu yaa ngi dégg fat ñu def vidéo boobu noonu macha allah ñu ko defoon kër maamam Pikine Ridis noonu fat vidéo bi cartonné nekk boo xamante vidéo bi yëpp jàll ba polémique bi daal di bari ku si nekk di si wax naan xale ba tey jii nii nii may wax ak yow du ñu bëri euh, ñu si bëri yaakaaruñu sax vidéo boobu ndax dëgg nit ñi dañoo yaakaar ni euh, mariage boobu noonu nga xamante ni moom la moom moom moom la defoon dëgg la te alors que benn bad buzz la woon ba nga xamante ni influenceurs yu bëree bëri bëri ndeysaan euh, doon nañ ci wax di def vidéo mu doon loo xamante ni sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp ñoo ko apprécié woon ba sax ki nee wax xale bu am bu moom moo takk jabar ama alors que si le clip bi génnee ñenn ñi xam ni euh, bad buzz la woon voilà mais am na ñu bëri ñoo xamante sax ñoom mujj ñu woon seetaan clip bi ba tey dañu yaakaar ni dëgg la moo tax tey bi ma bi ma xëyee daal di déglu nouvelle boobu noonu mu doon euh, tiis boo xamante ne man xaw ma sax man man nan laa ko mën a waaw nan laa ko mën a waxee parce que tey jii nii nekk na loo xamante ne franchement lu ma lu ma lu ma lu metti la waaye tamit euh, gëm yàlla quoi voilà gëm yàlla suñu borom di ko ñaanal yàlla na suuf oyof si kawam bon parce que bon xëy na mbébét bu mu bu mu bëggoon yàlla def na ne antu parce que yàlla rek moom mooy dogal yàlla rek moom mooy xool lu mu nam si jaam bi def ko parce booy xool moom euh, papam sax feebaroon na après tam décédé yàggul dara dara dara dara xam nga moom tamit mu ñëwaat euh, tegu si loo xamante ni aussi métti la mm-hmm. dëgg la muy lu métti métti métti parce que boo xoolee moom tamit papa ma ko jiitu ah yàggul dara moom tamit moom ñoo topp ci loolu mais moom boo xoolee am na seede doomu aadama def ci moom mooy man li ñu jot a xam ci moom mooy dafa jullitee parce que du faat waxtu waaw dafa jullite woon mm. moom gis nga gis nga booy xool interview bi interview bi sax bu ñu defoon day wax man man jullit laa aussi ndaw bu amoon ambition la parce que sànq maa ngi koy wax yaakaar naa ni ndaw bu xam bu gëmoon boppam la nekkoon nekkoon na xale mais te aussi tam xale bu gëmoon boppam la franchement yàlla xam na ko loolu moom mën naa kaa see seede si moom quoi xam nga moom maanaam xale bu teel a sotti loolu laa mën a expliquer yaa ngi bëri da nga koy xoose nga ne waa kii kii de moom macha allah maanaam da koy gis teg ko benn kii bi te alors que dafa doon xuuslu pour jéem a a démb d'après nu mu nu mu nu mu nu mu nu mu euh, décédé gis nga dafa jóge woon si ci jumaa yi mhm. daal di julli ba pare dugg si këram mhm. après si la euh, daal di daanu noonu ñu daal ko yóbbu yóbbu hôpital noonu si kii fekk daal dina ba kanam kon tey jii woy bu rafet la même bu fekkee ni tey jii ni euh, amul loo ko mën ta waxal loolu woy bu rafet que nit ku nekk da ñaan yàlla am mujj bu rafet yaakaar naa ne loolu rek moo jël a ñaan mhm. tey ji bu nee diw gaañu na wala diw faatu na naka la faatoo ñu ne dafa dafa doon jóge si jumaa ji julli ba pare daal di génn rek far yàlla moom ko kon tey jii nii kooku woy bu rafet la maanaam am nañ njort bu rafet si moom même bu dul loolu noonu sax même seede ngay dégg xale bu respecté woon julli la xale bu baax la woon xale bu amoon respect si ay si si ay magam man mosuma woon woowee el Modou déedéet el Modou doo ko dégg frère la nga ma doon wax frère la frère la ma doon wax billaahi ba yaayam sax tey jii nii su ma doon mosaana woo dama doon wax euh, yow magam nga yow nangam ba mu jël magam bu mu wax rek présenté ma ko mooy dëkkoon fii nii euh, mm-hmm. euh, ñoom ñaar sax ñoo nekkoon la woon fii nii euh, côté Assainignat bi noonu si côté kii bi sëñ Assane fa la fa lañ liggéey woon xam nga maamam aussi itam Pikine ñoom ñëpp xamoon naa leen ah ñoom ñëpp même chose billaahi en daal lu ma mënoon wax si moom loolu maanaam voilà voilà yàlla na koy yàlla yërëm xaare ko àjjana di ko wax yàlla bu ko cat jiitu si bàmmeelam xam nga parce que nekk na loo xamante ne franchement lu métti la voilà moo tax daal bon métti na di wax na tamit mais yàlla suñu borom moo xool ko neex mu ko jàmm ñu nangoo ko yàlla suñu borom lu mel ni yàlla yàlla gëj ci ñoom seen famille yàlla gëj tamit ci li nga xamante ne mooy ci ci ci yenn xale yi parce que deewu ndaw dafa metti donc ndaw dina dee nag parce que dee moom saa bu ñëwee rek day soññe di soññe nañu baree baree bari mais di ñaan rek yàlla na suufeef ci kam tamit yàlla ko yàlla suñ borom mu àggali ndawam euh, fële ci àjjana si waaw yàlla mi nga xamante ne tey ku jàkk moom nga ñaan di ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yalla jëggal bépp njumte bu mos def ci àdduna yàlla na réccu lim di ñëwee ci àdduna tamit waaw di di ko ñaanal rek xëy na yaakaar naa ni lu gën la waaye tam di ko ñaanal baax a baax yàlla mi nga xamante ne moom mooy buur bi yàlla na yàlla dolli yàlla na yàlla mottali et que mbébét bi nga xamante ne amoon na ko si yaayam tamit yàlla na ko yàlla na yàlla yàlla def mu egg ak jàmm ak salaam mm-hmm. parce que tamit euh, euh, comme li ñuy wax l'homme propose Dieu dispose mm-hmm. nit ak euh, mm-hmm. nit mi nga xamante ne moom mooy ñaan yàlla moom mooy dogal xam nit ak pexem yàlla ak dogalam quoi mais yàlla na yàlla mi nga xamante ne moom mooy yàlla moom ñëpp yàlla na ko yàlla teeru yàlla na ko Seydina Muhammad teeru fi nga xamante ne mooy àjjana fi daw si nekk na lu metti waaye muñ rek te gëm yàlla te xam ni et que tey jii lu mënta ñàkk rek faw moom aussi dem di ko jàlle Pape Ndoye bu baax a baax a baax waaw Pape parce que booy xool sax moo ma wax Pape Ndoye booy xool sax moo ma wax ndeysaan xëy na moom moo ngi euh, fële sa ñi nga xamante ñooy ñooy ñooy ñooy ñi yooyu noonu yàlla xam ne lu laa tegoon après si laa woo Pape mu expliqué ma ko ndeysaan mu doon loo xamante ne aussi tamit lu ma bett la franchement mm. parce que tey bi ma koy yeewuwaalee et nekk na lu ma bett lool lool lool lool waaye daal di ko ñaanal baax a baax.